ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sama boppama la gënal du bañ naa la gi ñuy wax suñu réew di Sénégal ma nga ca bu baax a baax yëral xët mu njëkk soleil national ci kaw pexe yi kilifa yi teg ngir jëre fi coronavirus bi moo waral ñu jël dogalub tëjël suñu jaww ji juróom-ñaari réew li ko dalee suba ci àllarba ji minuit moins une sa dootuñu nangooti benn avion di jóge ci réew yooye di teer si ci réew mi mbaa ñuy jóge ci réew mi di dem ci yooyu la réew juróom-ñaari réew yooye yan ak yan la soleil national nañu réewum France la Italie Espagne Belgique Portugal Algérie ak Tunisie le témoigné nañu Sénégal ñàkk na boppam moom na ay frontière aérienne am suba ci àllarba ji ci lay tàmbali bu minuit jotee journal Les Échos feelu ko xamal ñu ne Ndakaaru samp na ay diggam diggam ak réew yu coronavirus bi wulee ñaay lu dul ab avion yi ñuy wooye ay vol cargo ak i vol d'évacuation sanitaire dootuñu nangoote ñuy teew ci réew mi L'Observateur nañu ay muntawee su bàyyi deena joote ji ci coronavirus bi mi ngi yokk limub ñu corona ci réew mi yokk na léegi ma nga ca ñaar fukki cas ak juróom-ñaar cas bi mujj démb la feeñ benn doomu France bu toll ci juróom benn fukket ak juróom juróom-ñaari fan ci weeru mars la dugg si woon Sénégal roplaanub compagnie Liberia moom la jëloon bi muy ñëw ñeneen ñi journal l'Observateur gis ne warees na leen a bàyyi xel ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi mooy guney taalibe yi ndax ñoom i avion di dugg ci nañu donte dafay lu munta ñàkk terewul mesure yoo xam ne du jural jàmm aéroport Blaise Diagne la seen kay mel ne ku naan ko aéroport Blaise Diagne moom lu ñu fa jël ci dogal rek doyul ndax fa la coronavirus bi jaare ba dugg ci réew mi la tribune ne ko moo taxit dog nañu tipp yoon wi jàngoro ji jaar ba dugg ci réew mi dootuñu nangooti avion di jóge France Espagne Italie Portugal Algérie ak Tunisie di dugg ci réew mi anki dina kay nañu dogal boobee dogal la bu nar a jural ay jafe-jafe lii di tourisme bi ak fret bi l'observateur ne ko loolee ci gën a tuuti ndax tëju gi ñu bëgg a tëju bu yàggee lu ñuy dundee danañu të Ousmane Bay di directeur commerce intérieur di xamle ci biir journal l'observateur ne stock bu réew mi mën a dundee ñaar jàpp ñetti weer am na fi waaye bu ko rombee dafay doy waar tëj gi yi ci jaww jeeg ci géej gi journal le quotidien gis ci ne koom-koom bi moo nar a coronavirus ndax bu boobaa ak dund dootu jugeeti bitim réew di dugg ci réew mi te li mu nar a njëkk a jur ni ay jafe-jafe mooy ay recette fiscale ak recette douanière yuy wàññeeku Karim Wade ma ca dowa Le Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne nee na ànd nag président Macky Sall ci dogal yi mu jël te it mi ngi koy rafetlu bu baax a baax Thierno Bocoum jël kàddu gi ci Les Échos nee na président Macky Sall na génnee juróom-ñetti milliards yi mu amee ni ay fonds politique joxe ko ñu xeex ci coronavirus bi baa mu am lan lu mu ca joxe Sadio Mané joxe na million record yéene kay moo ko bind ubbil journal bi covid 19 bi ci Sénégal tax na footballkatu Sénégal bi di Sadio Mané yëkkati fanweeri million jébbal ko comité national gestion épidémie corona bi ngir jàppale ko ko ci xeex bi ministre de la santé di Abdoulaye Diouf ak leneen lu muy xeex muy ñi wër di wax naan coronavirus amul ci senegal xeex ba tàmbali naa jurus lëf grand place ni ñu ci ñi ko doon wax ñi cee njëkk am lente ak yoon ñoo di Abdoulaye Mbaye Peex ak Salbe Ndom communicateur traditionnel bi di nga woon ca gendarmerie journal bi la tax yàggu fa mooy ko gendarmerie laajee li nga wax foo ko teg dana leen tuub naa wax ji billaahi dootuma ko waxatee keneen ku ko waxoon te gendarme yi woolu ko grand place ne nañu moo di salbendom waaye li ci ñuul moo di moom seetkat bi dafa fa réer kenn xamul fan la nekk te it kenn mënu koo jot téléphone enquête nañu en tout cas gendarme yu section recherche ñoo ngi koy xaar convoqué nañu ko tey ji on heures ci yor yor Abdoulaye Mbaye Peex moom it woolu woon nañu ko démb déglu ko libéré ko ñu libéré wu ci waxi corona bi te dem ci libération bi ñu xëy livré ay xibaar yu jëm ci Khady Diouf xale bu jigéen bu fukket ak juróom bi ñu reyen ca Thiès ba muy faatu journal bi nee nañu mi ngi woon ak ëmb bu toll ci ñaari weer libération nañu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

dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal set le roi de l'information en temps réel.